ma sonal nandi te sonnul sama waaj naka la baaj loolu boo geen naka waar baleb jaam wallaay tey rafet nga de sama waay yaa gis waa sama caravane bi dafa baax tooj ba bi sama waay sama xale bu mu loon wax noonu

j'adore Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Vous allez bien Ça va Ça bien, merci beaucoup. Merci. Là, à l'aise, au bord de la plage. Hein. T'aimes bien hein. je vais ici, Avec la visite de tu bien oh? Ça va, je vais

dem après lekk benn plat bu l'instant en fait demain normalement dama war a dem ville dafay course mhm. si tu veux tu m'accompagnes Il n'y a pas de problème bien sûr je ñu dem ah waaw amul benn problème vers 9 h du matin comme ça tu ah, vas acheter quelque chose boo bëggee ma yeewu 6 heures du matin sax ñu yeewu 6 heures du matin

Ouais, je peux rajouter ça à la commande. kon suba dañuy dem ville. incha allah waaw bas incha allah. demain 9h ah. 9h ah yaa ma des sama kër. dama xiif dama xiifoon ñoom laa doon xaar bëgg ma woon lekk man kese damay wéet moo tax. chérie. Comment tu vas? Vous allez? Ça va? Ça va Mamiche. Là, on est Ça va Garçon bon ça, vous allez bien Oui, ça va. Alhamdoulilah, il y a une immense. Et son copain il est gentilles, c'est mignon en plus. Merci. Euh, je sais pas, hein. où le garçon, tu l'as appelé On a communion. Ah ouais, je sais pas, moi, t'as le nerf, l'ai le nerf. Hein. Champagne, bien champagne. Non, mais tequila, ça va. Ah oui, tequila. Mais mon gars, j'ai là dedans? Ok. Moi, j'ai un glace, tout ça ça j'ai un appel de Suisse là ah, un copain mon mon mais y waaw maa ngi nii di ñëw booy gëli booy seen benn golo lañ ma bëggoon jàppee bàyyi dama jëndaloo ay filet bouffé ay filet de xawma poisson xawma lan xaar ma koñ ma maa ngi nii ñu te caan nii waaw maa ngi samay dix mille las dix mille laa yoroon booy bëgguma pëtëxal waaw baax na waaw léegi-léegi léegi-léegi maa lay fekk bopp koñ ñu teg caan maa ngi nii di ñëw booy waaw léegi-léegi